jazakallahu xeyran min al muxsinina xeyran jaza yàlla nañu yàlla fayal ñuy rafetal alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi alladi hadana li hada وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ñu ngi sant yàlla ñu ngi koy màggal ñu ngi koy kañ ndax moom rek moo yooyoo màggal waaye moom rek moo yooyoo kañ ñu ngi julli tey sëlmal ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaan yàlla mu dolli ko xéewal moom ak waa këram ak képp koo xam ne teg na tànkam ci sunnaam bés pénc doomu ndey mbokk jullit ñi ñu ngi nekk ci fukki fan yu mujj yi maanaam ci jeexintal bi sax ndax boo xoolee xaaj nañu wala romb nañu xaaj bi ba tey jii la ñu nekk ci ñaar fukki fan ak juróom ñaar bokk ci gudd yu tool yi bokk ci fan yi nga xam ne ñoo nekk ci fan yu mujj yi suñu mbébét yépp nekk ci dajeg li nga xam ne moom mooy laylatul qadr yàlla nañu yàlla dajale ak moom doomu ndey yi moo ko jullit ñi xéewal mënul romb lii yàlla baaxee la nga bokk ci xeetu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga bokk ci xeet bi waaye ngay xencu sunnaam mu jaral la lu di lu di bëri waan na nit koo xam ne dafay toog bu déggee muhammad sallallahu alayhi wa sallam fatasu mu jaral ko sax mu génnee xaalis làmb poosam joxe waaye bu ñu nee sunnaam mu dëgg ci tànkam waaw ne sunna la rek yàlla nañu yàlla musal ci loolu kafaana rasulullah yonent bi doon sëkkantaan dëggantaan roy waay duñ ko waxee woon ci jamono yi paase rek mooy que ne bayaane dañuy def suñu kéemtalaay kattan ci suñu ilimaan yi saar ñuy jàng ñu ciy xool lan lañ ciy jàngat mun ci foraatu ndax kàddu yi du kàddu doomu aadama kàddu borom bi subhaanahu wa taala la waaye yàlla nañu ko yàlla déggloo ci loolu rek la ñuy mën a taxawee ci ay santaaneem suñu kémtalaay kàttan waaye daal di sori lépp loo xam ne daf ñu koo tere suñu ilimaan jàngal nañu suuratul Shu'araa mu am sax benn aaya boo xam ne yàgg nañ koo miin ci suñu wax mooy jeexital bi dañ koy def boros waaye saar bi yàlla mu ko tuddee waykat yi poète yi ba léegi sax bokkul ak musiciens yi moom parce que musiciens yi moom seen wax moom mu ngi ci suratul luqman ci commencement bi ba muy nan ba muy nan naa si man yasar yi lax wal xadis ñoom yàlla foofu la wax ak ñoom musiciens yi waaye ñii poète yi la yàlla tuddee saar bii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ëppoon ci lañ ko doon xas bokkoon na ci poète la ndax poète dañoo jikko woon jikko yoo xam ne yàlla mi ñu bind moo ñu ko seedeel fii ci alxuraan de saar bi tuddee na leen ko saar bi làmboo lu ëpp saa aaya yàlla waxul ci ñoom tuddul sax seen tur ci commencement bi comme ni nga gisee léeg-léeg mu tuddee saar benn tur commencement saar bi rek mu wax tur boobu mu ko tuddee waaye ci saa aaya yépp gisoo fenn fu yàlla waxee ci waykat yi te pourtant ñoom la tuddee way bi ñoom la tuddee saar bi mu ñëw ba ci fin bi ci la wax ak ñoom mooy fi mu naan wa shu'araa'u yattabi'uhumul ghaawuun yàlla de moo ñu wax kan mooy topp waykat yi ñu xool kan la ba léegi loolu doyul de ñaareelu aaya mu ne alam tara xanaa doo leen xool ñoom waykat yi fii kulli waadin yahimuun muy ñaar ñetteel bi mu ne wa annahum ñoom waykat yi yaquluuna maa laa yafaluun ku dégg ñetti aaya yi xam ne daf leen xas pourtant ñoom la tuddee saar bi jikko yii moo tax ñu doon xasee yonent bi shaa'ir poète nga sa alquran bii ngay wax waxu poète la ndax lii la ñu namm ci poète ci ci poète yi ñoom jikko yii la ñuy yor mu ne waykat yi wa shu'araaw yattabi'uhumul ghaawuun maanaam ñi nga xam ne dañoo dese nga xamante ne normaluñu nga xam ne seen xol yi dafa jéng te bu ñu nee jéng mooy ci côté sax naa féq mu ne ñooñu ñooy topp topp shaayir yi wa shu'araaw yattabi'uhumul ghaawuun mu ne alam tara xanaa doo leen xool ñoom waykat yi fii kulli waadin yahiimun xuroo xur mën nañ fa tàbbi ñoom dañuy ñëw léegi ànd ak kii parce que dafa yor moo xew bu subaa bu follee koo yoratul ñu ñu sànni ko fële ñëw ànd ak ki bees xool leen leen rek fii suñu réew am na ay shaayir yu ñu xam nga xam ne ñoom dañuy taggaate rek bu président ñëwee ñu ànd ak moom tagg ko tuddal ko ay maamam. fu ñu dem fu mu dem ñu dar ko waaye bés bu wàccee fàtte nañ ko ñoom ñooñu doon ko tagg ñuy ànd ak ku bees kii mel ne kee moom mosuñu woon ànd ak moom moo tax mu ne alam tara annahum fi kulli waadin yahimun ñoom xuroo xur dañ fay tàbbi ñoom waykat yi bi ci gën a bon mooy wa annahum ñoom waykat yi yaquluuna dañuy wax waaye maa laa yafaluun tey bëri waan na ay nit tuddee seen bopp ne ñoom ay taggkatu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lañu yonent bi xaarul suñun pour nañ ko tagg yonent bi xaarul ci xeetam pour nañ ko tagg yàlla xaarul ci xeetu yonent bi pour nañu tagg yonent bi yàlla li mu xaar ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy nañ ko topp moo tax tout le temps nga gis alquran mu naan laan atiwullah wa atiwu rasul topp yàlla topp yonent bi waaye di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te amoo benn jeexital ci sunnaam loolu dafay firi lii yàlla wax fii wa annahum yaquluuna maa laa yafaluun ñoom mun nañ la tuddal aminata mooy mooy yaayam mun nañ la tuddal abdallah mooy baayam alimatu moo ko nàmpal waaye yonent bi bu daan dugg jàkk nii la doon duggee jàkk intéressé wu leen yonent bi nii la daan jullee intéressé wu leen yonent bi nii la daan soloo intéressé wu leen bal sax boo soloo ñu yonent bi soloo ñu xas la utal la tur te nee nañu ñoom ñooy taggkat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo bàyyee sa sikkim ñu ne la terroriste ga amul lenn lu ñuy accepté ci yow looy nuru nuru lu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñi lay xas seen solin moom mooy jënd jesneer yu ngande sol ko muy buubu ñu gëmloo nit ñi que diine islam moom mooy taggal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi lu mu jàngale ci tagg bu ñu amee xel rek wala nañu xam ne yonente bi àndul si tagg ndax nee na nit ki bu fekkee dafa ñëw tagg la nooy def ak moom mooy bu njëkk mooy tibbal si suuf si sotti ko ci gémmiñam boobu ñaan bi sax ñëwagul waaye nit ki gis la rek Ousmane commencé laa tagg mu ne tibbal si suuf si nga sotti ci gémmiñam geste boobu rek mooy wane ne àndul ci tagg bi li yonent bi moo ko jàngale mu ne waaye ñaanal yàlla ne ko yàlla yàlla boo ma duma ci moom lu mu xamul ci man ndax lu bëri si taggkat yi bu ñu lay tagg lu ci bëri dañ koo umpale ci yow ñoom ñu ngi xool rek seen intérêt ci yow mooy boo bu ñu lay tagg liy jóge si sa poos dem ci ñoom moo tax du ñu xool say sikk bal sax dañu lay créer ay jikko yoo xam ne sax nekkul ci yow far moo tax yonent saa salaam jàngale ku la tagg ñaanal yàlla ne yàlla yàlla boo ma duma ci moom lu mu umpale ci man moom mi lay tagg kon lii la yàlla wax ci waykat yi suuratu Shu'araa muy benn jàngat ñaareelu jàngat bi ci saar bi dañ ciy jàng jinne yi moo tax bu mu jeexalee Shu'araa des fois dafay baax ñuy xool link yi nekk ci saar yi ak nu ñuy toppantee bu mu jeexalee Shu'araa rek dafa dugg ci ban saar du saba in la dugg wala xasas saba moom la dugg boo xoolee foofu mu ngi fay nettali histoire Souleymane ak jinne yi foofu dinañ ci ñëw si Souleymane moom waaye link bi li saari am mooy ci même ay yàlla mu ngi ciy wax aay biñ tàmm di waxal unabbiukum ala man tanazzalu shayatin yaakaar naa ñu bëri ñu ngi koy dégg ndax xamoo seytaane ci yenn jëmm lay wàcc tanazzalu ala kulli affaakin asim dafay wàcc ci ñi nga xamante ne moom mooy ay fenkat yu bëri bàkkaar waaye fi ñu bëgg jàngale tey mooy yulquuna sama wa aksaruhum kaadibuun yàlla nee na ñoom jinne yi yulquuna sama dañuy sànni seen nopp di déglu lu ñuy déglu mooy xibaar bu jóge ci asamaan yàlla dafay joxe ndigal ci malaaka yi comme niñ ko waxee ci laylatul qadr maanaam nga xam ne tanazalu malaaikatu wa ruuqu fiha bi izni rabbihim min kulli amr yàlla ndigal bi muy jox ci malaaka yi ci amr bi am ci nit ñi bu leen ko joxee ñoom malaaka yi dañuy sàbbal yàlla tàccu seen laaf yi waaye bu ñuy tàccu seen laaf yi bruit bi muy def ñun duñ ko dégg mais ñoom jinne yi dañ koy dégg yonent bi nee na malaaka yi bu ñuy tàccu seen laaf yi jinne yi bu ñu koy dégg dafay foor comme chaîne boo koy diri ci perron maanaam fekk perron wu karo bu liis nga jël chaîne bi di ko diri bruit boobu muy def nee na kërëng-kërëng boobu lay def ci nopp malaaka yi nopp jinne yi ñu xam ne am na xibaar bu xew su ko defee boobaa dañuy tegalante ñoom ñoom jinne yi tegalante tegalante tegalante ba am ku yegg ci asamaan moom mooy wax ak malaaka yi ne leen maza qaala rabbukum maanaam suñu borom lan la wax malaaka yi wax leen dëgg bi maanaam ki ci kaw lañ lañ koy wax léegi dëgg boobu moom da koy jël di ko jottali moroomu jinne mi ni ñu tungoomantee noonu la ñuy jottalantee dëgg bi ki ci kaw bu déggee dëgg bi bu ko waxee morom bi morom bi bu koy jottali beneen morom bi da ciy muur fen kooku bu koy joxat keneen ki kooku muuraat ci beneen fen noonu lañ koy joxantee ba buy yegg si suuf xibaar bi fen doo nga koy wër léeg-léeg fen bi mun na tombeeg dëgg exemple bu terre à terre la ñuy joxe Abdallah dégg ne maa ngi dem Tëngéej mu ne ah Ousmane de nee na mu ngi dem Tëngéej xëy na buy dem Tëngéej tata bi lay jël bu demee ba garage daf koy wàccee garage mu jël foofu kalandoo bu jëlee kalandoo nangam ak nangam wax li may def yépp te pourtant moom benn information rek la am mooy maa ngi dem Tëngéej mu yokk ci tata lay jël mu toog ci bu wàccee bu wàccee kalandoo lay jël. yokk ci yooyu yëpp et pourtant benn dëgg bi am na mooy tëngeej laa jëm te pourtant mun naa dem tëngeej te bañ a jël tata mun naa jël dem tëngeej te te bañ a jël lu mu jaar fi mu wax nii yëpp est-ce que sax du ma dem njëkkee Dakar doogu mujjee tëngeej waaye moom comme am na benn information si man mu muur ci lu dul dëgg ñoom jinne yi noonu la ñuy jëflanteeg ak jabarkat yi muy benn mbir boo xam ne dañ ko war a xam ñoom jinne yi dañoo soxla nit ñi pour nañ leen jàppale ci nit ñi nañu réer sànku. waaye ci niñ leen di jàppalee ci ay fen lañ leen di jox ay xibaar fen yooyu mun na nekk dëgg tombe parce que mun na ne maa ngi dem tëngéej ni mu ko waxee noonu laa koy defee jël tata wàcc sonadis jël clando et cetera comme ni mu ko waxee mun na nekk mais bi mu koy wax amu ci benn xam-xam ñoom dina nii la ñuy jëflantee ak njabarkat yi di leen jox ay xibaar yoo xamante ne ay fausse information yoo xam ne ci benn nouvelle dong lañ am mur ci ay fen loolu mun na tombe dëgg ñu ne njabarkat bi aay na comme mun na bañ a tombe ñu ne njabarkat bi li nga xam ne aayul waaye foofu li ñu ciy jàng rek mooy que ne ñun ak jinne yi waruñoo def àndandoo parce que ñoom li ñu namm ci ñun moom mooy nañu fees safara ànd ak ñoom donte nag am nañu baax ci ñoom jinne yi amul benn wala lenn ci lu ñu yéene ci jàmm munta nekk ndax du loolu la iblis namm ci ñun seen maam kon ñoom duñu suñu duñu suñu àndandoo mu am àtte bu metti nag ci nekk ci ñun nit ak nit ñi nga xam ne ñun ñooy fréquenté nit yi fréquenté jinne yi muy njabarkat yi képp koo xam ne dem na seeti njabarkat mu wax la li mu la wax nga ciy laam-laame di hésité naan mun naa am dëgg la wala du dëgg gëmoo li mu la wax di nga jaamu yàlla quarante yàlla du la nangul li nga koy jaamu moo xam da ngay julli yàlla du nangu julli bi moo xam da ngay woor yàlla du nangu woor bi moo xam da ngay aji màkk yàlla du nangu aji màkk bi da ngay saraxe yàlla du nangu saraxe bi bépp xeetu jaam yàlla ba mu def yàlla du la ko nangul et pourtant gëmoo li mu la wax mais lu tax nga am pénalité boobu yëpp mooy yow yaa séq say jéego dem seeti ko moom njabarkat bi kon danger la jullit bi dem seeti njabarkat jigéen ñu bàyyi xel baax li may wax parce que ñoom ñoo leen dooleel ku ci bëgg sa jëkkër yam ci yow nga ne naa dem ci njabarkat bi na ko njabar ba du gis keneen man rek lay gis sa jëkkër bu la bàyyee junni dépense nga waroon ko jënd ginaar toggal ko nga dem seet njabarkat bi jox ko pour bu mu takk keneen looloo fi am société bi léegi ñu leen defar sax promotion léegi ci télé yi télé yi ñoom daanaka ñoom ñooy jàppale njabarkat yi léegi seen ay numéro ak seen seen promotion waaye lii mooy danger nga dem seeti njabarkat mu wax la li mu la wax gëmoo ko su la waxee nag li mu lay wax nga gëm ko nag weddi nga li yàlla wàccee ci yonent yàlla Muhammad te mooy alxuraan bi ak jàngaleem foofu li lay war mooy nga tubaat dugg ci diine bi waaye en tant que jabarkat bi wax na la ay tegtal nga jug dem defi tegtal yooyu rayal xar saraxel ginaar saraxel guro bu ñuul wala gu- gu- guro bu xonq guro bu weex nga génn gëm loolu dem appliquer loolu mu wax weddi nga li yàlla wàccee ci yonent yàlla Muhammad li mooy danger njabarkat kon nañ leen moytu bu baax a baax ñoom njabarkat yi julit du fréquenté njabarkat moom njabarkat bi nga xam ne moom mooy njabar moom di ndey mbil gi atteem mooy dañ ko war a rey ginnaaw biñ ko laayee biir ba pare ne ko li ngay def baaxul jox ko ay tegtal lu wóor mu weddi loolu féetéer lu teg ci tànkam atteem mooy dañ ko war a rey moo tax boo xoolee nguur Umar Umar bun Xattaab moom dafa daan rey njabarkat yi ba nga xam ne njabarkat daawul amul woon ci ci li nga xam ne mooy nguuram kon nañ leen moytu li nga xamante ni moom mooy njabar beneen seetlu bi ñuy def taxaw seetlu ko ci alxuraan ba léegi moom mooy suñu imaam dugg na si histoire yonent yàlla Souleymane mu nekk histoire boo xamante ne gudd na lool waaye point bi ñu ciy jël rek benn point la muy point bu siiw si suñu jamono ñu war cee bàyyi xel muy jébbalu doomu aadama du jébbalu ci moroomu nitam te loolu léegi mu ngi ne xaral si suñu réew Sénégal dama jébbalu ci diw suñu maam Ibrahim moom de moom mooy papa yi ñuy wéetal yàlla biñ ko bi nga yàlla laajee ci koo jébbalu wala xanaa doo jébbalu a aslamtum lu mu tontu aslamtu lillahi rabbil alamin man de jébbalu naa ci yàlla mi nga xam ne mooy boroom ñëpp mooy boroom lépp kon bu ñuy jébbalu ci yàlla la ñuy jébbalu waaye du ñu jébbalu ci nit bi nga xam ne dafay nelaw dafay fàtte dafay sax faatu génn àdduna waaye Souleymane tam xool leen ko ci histoire bii bi nga xamee ne buur bi ñuy wax Balxiis ànd nag moom waar ko xamal ko boroomam tegtal ko ba Balxiis fas yéene dugg ci diine bi Balxiis bu muy dugg ci diine bi waxul ne jébbalu naa Souleymane mi sonn ci man pour ma xam yàlla dafa ne inni aslamtu maa Souleymane lillahi rabbil alamin man de maa ngi ànd ak Souleymane jébbalu ci kan ci yàlla bi nga xamante ne moom mooy boroom lépp. kon ñaari ñaari link yi gis ngeen nu mu méngoowee Ibrahim bi ko yàlla laajee dafa ne ci yow laay jébbalu Balxiis tamit mënoon na jébbalu ci Souleymane mi nga xam ne moo ko waar nekk sëriñam waaye jébbaluwul ci moom dafa ne moom ak Souleymane yépp ñu ngi ànd jébbalu ci yàlla kon bu ñuy jébbalu ci yàlla la ñuy jébbalu loolu mooy soumission soumission nag mooy firi al muslim bu ñu la nee muslim mooy ku jébbalu ki tur bi nag pour nga méritoo ko mooy doo jébbalu ci sa moroomu nit waaye da ngay jébbalu ci yàlla mi nga xam ne moom moo la bind képp koo xam ne nag jébbalu na ci moroomu nitam wala jébbalu na ci ak lu mu mun doon te du yàlla troisième saar bi muy doog a dugg te dinañ ko jàng eggul ci aaya bi mooy suuratul Ankabut yàlla ah saar bi mu tuddee jorgoñ yàlla nee na boo ko fi bàyyee jébbalu ci leneen lu dul moom ci loolu nga jébbalu néegu jorgoñ sax moo ko gën a dëgër néeg boo xam ne boo jëloon xeer bu gën a ndaw lonk ko ci dafay dagg mënul téye dara lu dul jorgoñ bi rek la mën a téye. yàlla nee na boo jébbal jébbalee sa bopp ci keneen ku dul moom yàlla néegu jorgoñ sax moo gën a dëgër ci loolu nga jébbalu kon lan lay signifier mooy que ne ci li nga jébbalu amul benn njëriñ ci yow mun laa lor mun laa jëriñ bal sax boo ko bu la wanee ginnaaw fàtte na la nga bàyyi fi koo xamante ne nga wan ko ginnaaw wan ko kanam nga bàyyi sa kër dem mu sàmm sa kër sa ginnaaw sàmm la yow mi dem sàkk la te boo boo faatoo ci moom ngay dellu nga bàyyi fi kooku di jébbalu ci koo xamante ne nit la comme yow kon yooyu nañ ci bàyyi xel yàlla nañu yàlla may dégg ak topp yàlla nañu yàlla sàmm rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi l axirati xasanatan wa qina azaba annar ñu jubluwaat ci naafila bi insha allah